alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala ñaanal jéggal ak kawe sunu yonante muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñu war a tàmbali téere bu bees bu ñuy tudde kitaabu tawxid kon bu nee kitaabu tawxiid rek xam nañ fa mu jëm mooy mi ngi jàngale lu aju ci wéetal borom bi subhanahu ci tawxiidullah kon du téere fiq du téere xadiit du téere siira du téere tafsir waaye téere la bu aju ci nu ñuy amee tawxiid téere boobu nag mi ngi tudd kitaabu tawxiid ki ko taalif mooy a cheikh muhammad ibnu abdul wahab ibnu a cheikh muhammad ibnu abdul wahab mi ngi juddu ci dëkk bu ñuy wax al uyayna ca Arab Saoudi la nekk atum mille cent quinze ci gàddaay ci la judd nekk boroom xam-xam boo xam ni ci ndawam la tàmbali di góor góorgóorlu ci njàng mais nag dafa judd ci këru xam-xam pàppam boroom xam-xam la woon ba nekk mufti muy Abdul Wahab maamam boroom xam-xam la woon ba nekk mufti ca diyaaru Najd muy Suleymaan moom it yàlla bëggloo ko xam-xam depuis bi mu nekkee ndaw jàng na euh, ca dëkkam dem na Madina jàng fa dem na Màkka jàng fa dem na Irak jàng fa ak ñeneen ak ci faneen ak faneen foo xam ne dem na jàng yàlla dimbali ko tamit mu doon dund ci waxtu woo xam ni Arab Saoudi ci réew yi gënoon a mën a bokkaale lan bokkoon bokkaale rek fees dellu woon foofu eh, xabru yaag aju ci doomi aadama ni yow ak shirk yaag bidaa yooyu yépp dafa tasaara woon tasaaroo woon ca gox booba nga xam ni boo indee leneen loo xam ni tawhid bu leer la sax yow da am problème ci moment boobu ci waxtu woowu ci la as cheikh Mouhamed Ibn Abdul Wahab génn nag tàmbali nag li mu jàng mu leer yàlla dimbali ko mu gis pas-pas bu leer naññ mu tàmbali nag di ko tosaare di ko jàngale di jàngale tey saa ñu bunduxataan ko tey saa sax ñu génn ko ci dëkkam nee naa la euh, euh, juddoo waaye ma nga faatoo ca diriya Bilaay a faatu atum deux cent euh, mille deux cent six ci gàddaay gi bi ñu ko génnee ba mu dem foofu nga xam ni euh, am na ñoo xam sax bëgg nañ koo jaxaseeg buur buur ba fa nekk jamono jooju muy Mohammed ibn Saoud su boobu Arab Saudi ne tudd tuddagul woon Arab Saudi ay dëkk dëkkaan la yoo xam ne bu ci nekk am na buur bu fa nekk masalan waa njàmbur am nañ seen euh, jaraaf seen buur waa kajoor am seen buur waa waalo am seen buur noonu la doon demee masalan mu dëkk njàmbur waa njàmbur génn ko amul fu mu dem mu bi mu egsee nekk fa su bi jamono jooju tamit siiw na ci nit ñi di ko dégg parce que boroom xam-xam moom loo ko xeex xeex xeex dina ami taalibe te di leen koy dénk soxna buur bi ci boppam muy soxna euh, Mohamed euh, ban Saoud dégg ni góor gi mu ngi ci dëkk bi mu wax kilifaam ñu ko man day li ma doon ñaan yàlla dafa mel na yàlla def na dégg naa ni cheikh boobu ñuy wax Mouhamed Ibn Abdul Wahab mi ngi ci mi ngi mi ci suñu su ma sañoon nag moom bala ma fay ñëw yow ci sa bopp nga dem seet moo ko am wàcc na ci dëkk xamagul ndax kilifa bu ko déggee dina ko génne wala dina ko tëj wala dina ko nàngam mu toog ba mu yàgg ak kër ga mu daloon xaritam ba ko daloon ci kër gu yamu may pour ci boppam sol dàllam ñu ni diw laay seet ñëw toog mu ñaan ñu waxtaan yàlla bëgguloo ko góor gi tamit nag moom it yàlla bëgguloo ko tawxiid ak diine xam nga buur su bu jubee bëgg diine ba pare jël boroom xam-xam yi teg ci wetam di leen déglu nag maanaam nekk gone gu tuuti ci maanaam seen kanam bu toogee ci kanam Cheikh Mohamed Abdul Wahab moom day jàpp moom donga la fàttali moom am na benn ndomba ci ndombay àdduna yi fu ko góor gi ni ko ni ko lii la loolu lay def ñoom ñaar ñu ànd góor gi nekk di jàngale taalibe yi di bëri dañuy ñëw ñëpp dañ koy topp te yàlla tax topp ñu tamit jëmmam mais lim leen di jàngal la ñu ñu dem ba euh, Mohammed ibn Saoud bëgg mu jàppale ko ñu ànd pour mën a taxawal loo xam ni euh, li ñu gëm muy alxuraan ak sunna dinañ ko gën a mën a tasaare góor gi ni ko man day boo ma garanteer boo ma garan boo ma garanti euh, leeni su ma la jàppalee doo atte lu dul lu dëppoog alxuraan ak sunna insha allah rabbi ma jàppale mu ni ko maa ngi lay garanti fii ba ba may faaf lépp lu wér ci alxuraan sunna boo ma ko waxee moom laay doxal ci dëkk bi ñoom ñaar ñu ànd yàlla barkeel ànd boobu ànd boobu mooy law ba fii ñu toll nii ànd boobu moo tax bokkaaleen boo demee Arabie Saoudite pour nga gis ko fa problème ànd boobu tax na ay xabro ki bàmmeelu sëriñ ak euh, wàllu yeeg nangam déedéet moom ci boppam muy Muhammad ibn Abdul Wahab boo demoon Arabie Saoudite bëgg xam xabroom da problème dëkk ba mu faatoo xam ni ñu suul ko fa man dem naa fa ay yooni yoon muy at ak jërëjëf ci biir Riyad la nekk pour nga mën a xam ni fii mooy xabroom wala feelan ko dañ sa problème amul parce que yàlla dimbali na ko muy yar leen ci toog même ab buur bu faatu boo demee fa ni suul nit ñëpp fa leen leen suul te ba pare kenn du ko tabax kenn du ko sax yëkkati yëkkati ñaari birig wala ñetti birig wërale amu fa. buur bi faatoo keneen ki faatu ñooyam day pare rek suul ci suuf si dem si loolu nag moom mii da caa liggéey lu bëree bëree bëri yàlla barkeel ko tamit mu taalif ay téere yu bëri yépp yu ci bëri boobu mu yittewoo ko ci tawxid parce que soo nekkee ci jamono da xool li seen feebar nga nekk usulu salaas kasfu shubuhaat maanaam ay téereem yi mu taalif mais da nga gis ni yépp wala yiti ëpp ci leeral tawxiid la loolu nag ko koy def di nga ami noonu jamono jooju ñi nga xam ne mooy nitu bidaay ñi bokkaale fu ne dëkkal nañ ko fa ci njaal bi dañ naan kii dafa contre yonent bi sa alayhi wasallam kii dafa contre ñu baax kii nangam nangam nangam moom mu kon ne rek ci daawam ba yàlla barkeel ko suñu toll wax duma biir arasid waaye ci àdduna bi tey ñu bëree bëree bëree bëree bëri tey ñu xam lu leer imma am na ci jeexantal direct wala indirect waaye li jar a taxaw tuuti mbokk yi ci moom dangay gis ñi nga xam ni yàlla baaxee gu leen ñu gis sunna su leer nañ yore pas-pas bu leer nañ ñi leen ci yàlla defale tawfiq yéen xam nga fu leen di askanale parce que yéen li leen yitteel mooy alxuraan sunna ci nee kii mooy seen sëriñ yi Muhammad la Abdul Wahhab te li ma leer na mooy ñu bari ci yéen xamuñu woon sax turam isa nga toog sunni boo xam ne ba mu nekk sunna kenn xamul kañ la xamul sax turu Muhammad ibn Abdul Wahab boo waxee ma ne la Abdul mooy bàyyam xam nga kon kooku takkalewul boppam ak nit soo ne woon kañ la judd sax xamu ko fu mu faatoo xamu ko fan la dëkk xamu ko kon Muhammad ibn Abdul Wahab lu mu baax baax yitteelu maanaam yitteelu nu jàng ne jëmmam yitteelu kenn la ci boroom xam-xamu lislaam yi la muy wax lañuy xool bu ñu demee ba ñu sax mu wax mu am njuumte dañ lii ak njumte rek dañ koy jël de fële topp ñu Muhammad ibn Abdul Wahab topp ñu ibnu Taymiya topp ñu Ahmad ibn Hanbal topp ñu keneen keneen topp mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi xam-xam nag dinañ jàng seeni téere nga xam ni ñu ngi ñuy tette di ñu won alxuraan ak sunna ak pas-pas bu leer nañ kon ñooñu ay warooy mi xam-xam lañ yoo xam ni dañ ñuy niital mais la niital dañ koy teg ci alxuraan sunna de ci dalil de bu ñu jaaxlee sax dinañ ni kii li mu wax ko teg bu fekkee ni indi na lu leer naa ñu jël ko buñ ko indiwul ñu bàyyil ko ko fa parce que alxaqu axaqu ay yët tabax dëgg rek moo yey ñu topp ko du kareen loolu nag ku ci yàlla dimbali ba nga yore pas-pas boobu te moom bokk na ci ñi liggéey ci pas-pas boobu xam ne du ay jëmm lan lay la lay moom lañ lay takkalee mais liñ lay takkalee ay texte la bu doon loolu yonent bi bi mu fiy jógee mu takkale ñoo ay jëmm mais déedéet dafa ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi kitaaballahi wa sunnati li ma leen bàyyee du ay nit de ak i sant mais dama leen bàyyee alxuraan ak sunna su ngeen ci jàppee du ngeen mooy du ngeen réer ba faw ci beneen nettali mu ne taraktukum ala almahajjati albayda layluha ka nahaariha laa yazigu anha illa haalik bàyyi naa leen ak xàll wu leer nañ xàll wu yaatu te leer loolu mooy almahajja almahajja mooy yoon wu rëy albayda bu leer naññ nag boo xam ne layluha ka nahaariha guddeem ak bëccëm agam benn la mooy sunna mooy tawxid kenn du ko wàcc jàll ci ñàll gi ku dul koo xam dangaa nar a texeel kon téere Cheikh Mouhamadul Abdul bii la ñuy jàng jëm ci buntu tawxid te tawxid mooy cosaanu mbir mi moom nee na kitaabu tawxid tawxid mooy wéetal borom bi subhaanahu wa taala ñetti façon la am nag mën nga ko tàqale eh, eh, eh, ci ñetti xaaj wala ci ñaari xaaj waaye boo ko defee ñetti xaaj rek la lay indi am na luy tuddee tawxiidul rububiya mooy nga wéetal yàlla ci ay jëfam moom ifraadullahi taala fi afaalihi wéetal yàlla ci ay jëfam moom mooy loolu mooy lan mooy nga wéetal ko ni moom dong mooy kiy bind keneen bi bind kooku wéetal ko mais loolu jëfam la moom dong mooy wërsëgal keneen du wërsëgal moom dong mooy dundal moom dong mooy rey loolu mooy tawxiidul rububiya moom dongit moo ñu bind keneen binduñu loolu nag képp ko amum xel rek wax dëgg yàlla bala seytaane mënul di ko reconnaître moo tax ba ci yéeféeru màkka yi sax ànd ak ne ay yéeféer lañ woon reconnaître na lu ñu jaamu xërëm xërëm xërëm xërëm xërëm yeesaa bu ñu jàqee dellu ci yàlla wala in saaltahum man xalaqa alsamawat wal arda la yaqulun bu ñu nekkoon ci biir Euh, gaal ci biir géej ba mbir mi jaxasoo nga xam ne dara desu fa lu dul lab ñu dellu ci borom bi subhaana taala xam ne xërëm yooyu ay caaxaan la xanaa buñ génnaatee la ni fàtte yàlla nekk ci xërëm yooyu fa ida rakibu fi lfulki daawu llaha muxlisina lahu ddin yàlla nee na fa lamma najjahum ila albarri ida hum yushriku nee nag bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu nekkee ci biti daal la ñuy bokkaale mais bu ñu nekkee ci xat-xat dem ci yàlla loolu mooy tawxid bu njëkk mooy tawxid rububiyya wéetal yàlla cay jëfam li ci doy waar mooy ñun ñi nga xam ne ay jullit la ñun ñi nga xam ne ay jullit la dem nañ sax ba yéeféeru màkkay xaw ñoo tane foofu ndax yéeféeru màkkay ñoom reconnaître nañ tawxid rububiyya ñun nag am na ñoo xam sax reconnaître tawxid rububiyya fa am ñoo xam ne kaneen la ni askanele ni mooy bind kaneen la ni askanele mooy wërsëg keneen la ni askane la ni moo yore euh, dund ak dee keneen la ni askane la ni moo yore ruuxu jaam yi nga xam ni balaa nit a euh, faatu wala dongaama faatu malaaka bi dina ko tàggu wala yàlla dina ko tàggu wala dina euh, jëflante ak malaaka bi wala dina xeex ak moom wala dina ko dab fu xarti ko ah ak yi demee noonu yooyu yëpp nga koy gis ñuy askano ñaareel ba mooy tawxidul uluhiya ñu koy tuddee tawxidul ibada loolu mooy lan mooy wéetal yàlla ci suñuy jëf ñun jàng ifraadullahi subhanahu wa taala fi afaalina sooy julli wéetal ci yàlla sooy woor wéetal ci yàlla sooy jaamu yàlla wéetalal yàlla subhanahu wa qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi dalika umirtu wa ana awwalul muslimin sa lépp booy def wéetal ci yàlla subhanahu wa taala sooy ñaan ñaanal yàlla ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani dinaa wuy ku ma ñaan de ñaanee man su ma ñaanee laa laawaale ci keneen su ñaanee keneen keneen taxatul eh, boobu taxatul ñuy wax yàlla nee na ma fàtte ko teg ko fële bu ma ñaanee man dong nag booba moom parce que ana aghna shuraka ani shirk maay ki gën a doylu loo may booleeg laneen man amila amalan ashraka fihi maaya gayri taraktuhu wa shirk lépp loo ma defal man yàlla boole ca keneen bu boobaa ma bàyyi la sa bokkaale googu kon loolu mooy ñaareelu tawxiid bi mooy wéetal borom bi ci suñuy jaamu yàlla suñuy lépp loolu nag mën nga ni moo lal téere bii tawxiidul uluhiya boobu muy tawxiidul ibaada ñu jéem a fexe ba wéetal yàlla ci suñu lépp ñu wéetalee yàlla suñu lépp moom la ñuy yaakaar doon yaakaar kaneen moom la ñuy xam tamit njariñ ak lor ci loxoom la nekk nekkul ci loxo kaneen moom lañuy jaamu jaamu ñu jaamu nit duñu jaamu nag duñu jaamu dara waxatuma nag garab goo xam ne ñoo ko saxal dem ba mu màgg ñu dem di ko raaya di ko tiim ak di ko xànc di ko wër wala moom ma ak xërëm la parce que ñun fi ni nii si Sénégal ñu ngi jaamu xërëm xërëmu màkka yi ay ay kii lañ jël yett ko di ko jaam ñun nag ay garab ak ay yooyu yëpp am na fi dëkk sàngam ak dëkk sàngam dëkk sàngam boo ci dem day gis garab gu rëy goo xam ne ni ñaa fay jaar muy dugal xaalis tamit nag am yoo xam tamit bu garab nekkul it ay xabroo nga fa muy dugal tamit ay million kon boobu mooy ñaareel bi ñetteel mooy tawxidul asmaa wa sifaat wéetal yàlla ci saxalal ko ay turam yi mu saxal ci alquran wala yonente bi saxalal ko ko ci sunnaam bu wér ci lu dul nga koy dàq wala nga koy tawil wala nga koy nuroo leeg leneen loolu mooy tawxidul asma wa ñetti xeetu tawxid yi moo am amul beneen te boo boo wëree texte yi ñëw yépp ci alxuraan ak sunna génnul yi leneen loo indi rek day dugg ci benn ci yi te nag euh, ay adilla moom fees na dell ci alxuraan ak sunna am na ñoo xam ni sax ay borom xam yu taalif spécial ci rek ak saamu tawxid xeeti tawxid bokk na Cheikh Abdurazaq al qawlu sadid fi ma ankara eh, taqsima tawxid ak ñeneen ak ñeneen ñu ci taalif eh, ibnu eh, ibnu ibnu qayim leeral na ko ci leeral na ci moom it boobu bokk ci ci njëkk wax ci loolu sax Abu Hanifa Abu Hanifa Euh, ak ñeneen ak ñeneen ak ñeent Abu Hanifa 150 ci gàddaay gi la faatu moo tax mu ni kitaabu tawxiid kon ci ñett yooyu lay wax mais nee naa la bi ko ci gën a yitteel mooy tawxiidul uluhiya xam na ñeneen sax dañuy wax naan li tax yàlla bind li tax yàlla wàcce yonent yi yónni yonent yi li tax yàlla wàcce téere yi li tax yàlla teg àjjana ak safara ngir tawxiidul moo tax bi muy indi xutba téere bi indiwul waxu boppam li ñu xam ci téere booy taalif yow yaay indi say waxu bopp làkk sa làkk bopp ba pare nag nga tàmbali mais téere bi yépp mën nga ni presque waxam nekku ci xanaa bu demee bay jeex rek mu indi ay masaay masaay nangam la indi ak i xadis yépp nag bu ci nekk aju ci wàllu tawhid ba ci xutba bi muy muy li mu li mu laytaaye téere bi ay aaya la ak i ak i xadis ba mu njëkk a tàmbalee mooy waxi yàlla subhanahu wa taala bi ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun da ko àggale mooy maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutimoon inna allaha huwa razaqu zul quwwati al matin nee na yàlla nee na wa maa xalaqtul jinna binduma jinne wal insa ak nit illaa lu dul li yaabuduni ñu jaamu ma mel na abdullah ibn abbas ku mel ne ali ibn abi talib ñu ne illaa li yaabuduni ay illaa li yuwaxiduni fi l ibaada ma ca jaamu ko xam nga nit dina jub ne day jaamu yàlla dugaale ci bokkaale mais nag illaa li yaabudu illaa li mu mën a jël maanaa bu leer nañ mooy illaa li yuwaxiduuni fil ibaada ñu wéetal ma ci jaamu gën may jaamu xam ni man dong maay ki yeyoo ñu jaamu keneen ku dul yàlla yeyoo ñu jaamu te bis boo ci xaajoo bis dina ñëw ñu ni faatu na te fors dinañ ko suul waa duñ ko fa bàyyi boo fa bàyyi gis musiba kon boobaa dinañ ne xabroo ma ngi nii kii di wax ni moom la may jaam xabroo ma ngi nii kon yàlla dong mooy almaabudu bi xaq nee na nag binduma nit ak jinne du lu ñu jaamu kon xekkama bi tax yàlla bind nit ak jinne lu lenn lu ñu jaamu soxlawul ci ñun ñu koy wërsëgal parce que moo ñuy wërsëgal soxlawul ci ñun lenn lu dul ñu jaamu ko te sellal jaamu ko jaamu nag mooy lan al ibadatu mooy lan al ibadatu boroom xam-xam yi indi nañ ci ay xamle yu bari mais xam la ba ca gën a mat matale mooy bi cheikhul islam ibn taymiya indi ci téere bu mu tudde al ubudiyatu benn téere la boo xam ne ñu ko dëxañ ci biir majmuul fatawa am na ñu ko génne encore muur ko moom dong mais boo demee ci biir majmuul fatawa mi ngi ci mu tudde ko al ubudiyatu mu ni al ibaadatu ismun jaamiun li kulli maa yuhibbuhu llahu wa yarda mu ni al ibaadatu ismun jaamiun li kulli maa yuhibbuhu llahu wa yardaah min al aqwaali wal af'aali az-zaahirati wal baatini nee na jaam jaamu daal benn mbir la boo xam ne dafa làmboo lépp lu yàlla bëgg te gërëm ci ay wax ak ci ay jëf moo xam feeñ na moo xam nëbb na kon gis nga jaamu yàlla yaatu na lool yàlla subhanahu wa taala indiwuñu ci kaw suuf ngir ñu caaxaan indiwuñu ci kaw suuf ngir ñu fo afa xasibtum naa xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun loolu la yàlla wax ndax da ngeen a njort ni dama leen indi ci kaw suuf ngeen di caaxaan ak di fo déedéet taala allahu an dalik yàlla ëppale na boppam loolu daf ñu fee mission te lu gàtt la dañ fi war a jóge te buñ jógee dañ ko rendre compte la taxoon ma bind la loo ci taxe loo ci defoon loo ci taxe woon nga lijjanti lépp mu doogoo xool nag ndax da lay dugal àjjana wala da lay dugal feneen yàlla nu yàlla musal ci feneen te yàlla dugal ñu àjjana bi xeyri xisaabin wala ada mu tegaat ca walaqad baasnaa fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taaxut yi mooy yi mooy muqaddimam yi mooy laytaayam de daf laa bëgg wax ne la tawxiid mën ko koo am te doo génn alxuraan ak sunna man sama waxi bopp ba ko fa yitteewul man nit la du man maa koy jox mais jëlal alxuraan ak sunna lim lay jox ndax kon kii indi na lu bees indiwul lu bees muqaddimaam sax dugalu ci waxam te gis nga ay taalifam nag yu simple lay doon loolu moom mooy mooy mooy mooy kiiw boroom xam-xam euh, booy xool même Cheikh Albani tey ngay déglu ay waxtaana wala ay dé maam niveau bu simple la la koy def boo xam ne tey loo jege dañ koy comprendre ci saa si dañ koy comprendre ci saa si te nekk mu nekk nag xam-xam bu fees dell mais ci anam bu simple yàlla ni walaqad baax naa yónni na fii kulli ummatin ci xeet wum manti doon tàmbalee aadama alayhi salaatu wasalaam ba ci yonte bi sallallahu alayhi ku ci nekk yónni naa ca rasulan ab yonent li tax ma yónni yonent yooyu yàlla nee na ban mission la yonent yooyu am lan mooy xekk ma fi irsaali rusul mu ni an iabudullaha wajtanibu taagut du lenn lu dul ñu jaamu yàlla te wéetal jaamu ka te moytu taaxut taaxut nag am nay xamle yu bari ku mel na eh, ibnu eh, ibnul qayim nee na eh, lépp lu ñuy jaamu lu dul yàlla ibnu kathir ñuy wax lu xaw a demee noonu kullu ma yu'badu min dunillah ah booba taaxut la kon bokkaale taaxut la leneen lu mu mënti doon taaxut lu dul tawxid daal lu dul wéetal yàlla lu safaan wéetal yàlla rek baaxul mu ne yonent yépp li ma leen wax mooy su ngeen eggee wax leen seen xeet nii ni leen nanu jaamu yàlla kese te moytul leneen lu dul jaamu yàlla ci ay bokkaale yonent yi tamit ku ci ñëw ci noonu nga nekk kon yonent yépp ci tawxid lan doon woote woote wuñu ci bokkaale woote wuñu ci biddaa woote wuñu ci seeni bopp mais ku ci nekk boo ñëwee da ngay fàtte sa bopp yonent bi sax bi ñëw dafa ne qul innama ana basharun mislukum te ko wax loolu ni ko ni leen man nit laa ni yéen qul innama ana te ni ko yàlla defee mooy tax nit ñi dañuy mën a xam ni nit la parce que da koy da da koy génne ca biir nit ña baayam nekk fa ndeyam nekk fa mu ne ko takkal soxna mu ami doom di lekk di naan di tëdd di nelaw di fàtte di ami soxla muy faju ak muy ñàkk faju xam nga ko da xam ni kii nit la mais ñoom ñépp seen mission moo doon tawxid wéetal yàlla fexe ba nit ñi def ko wa ila aadin axaahum huuda qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ñii ñëpp yàlla nee na bu ñu ñëwee dañ naan jaamu leen yàlla amul keneen ku war a jaamu ko dul su fekkee ne yonent yii nga te dañoo gën a kawe nag ci nit ñoom bi ñëwee woowuñu ñu ci seeni bopp woowuñu ni ci seeni baay ak seeni maam woowuñu ni ci seeni sant ak seeni askan lu dul dina woo ci yàlla keneen ku manti doon boo ñëwee jaaroo ko wala ngay woote ci sa nit wala ci sa maam wala ci sa sant bu boobaa jàppale ko ci taabut la nekk maanaam aay bii mu indi ko fii ca waxtu woowu doon taalif du neen am na lu bëgg junj foofu mooy yàlla dong la ñuy jaamu leneen lu dul yàlla neen yonent yi sax bi ñëwee yàlla la ñu doonoon mais waruñu ne woon seen bopp waruñu ne woon seen bopp man mii ni ma toogee nii di leen jàngal yàlla dimbali na leen parce que gis nga sunna nag dafa neex war ko dëgg yàlla dafa neex te sem tey lu ma leen di jàngal jàngal bu subaa bu ngeen gisoon ma wàcc sunna fee ngeen may teg parce que jëmm ki toog di leen jàngal yitteelu leen lim leen wax dong nga leen yitte. bis bu ko wàccoon ngeen ni ko fa ñukk dem seeta la loolu nag ki yàlla dimbali ba mu wuññeeku ci sunna mu leer kooku mooy am loolu am na koo xam ni moom nit kii rek lay jàll bu ni ko nelawal mu nelaw gëmmal mu gëmmal xooleel mu xooleel duggal mu dugg noppi maa foofu rek lu ma wax mën na koo taawil nag yàlla dafa bind te yemalewul lu nekk mën a nekk bu leen di diingat bu leen di weddi ah waaw kii jox lay mayam nga bëgg koo weddi ah waaye yàlla da koo mën ma mën maam lu nekk nii dina ko su ne woon yàlla léegi man la affecté sax man maa yore sa sa dossier ah ci àdduna ak àllaaxira mu ne waaw parce que yàlla kii moom du caaxaan lu ma wax noonu la nga xam ni euh, nit ñi ci loolu lañ leen tàggat damay wax sama yéen sama yenn euh, élèves yi ma ne ñun Sénégal dañ ñoo dañ ñoo dañ ñoo tàpp dañ ñoo euh, tàpp tàpp ba ñu nekk xarum tàpp. ko defee nag fu ñu jëmale rek loolu musiba la ci buntu tawxiid kon yonent yi li taxoon ñu ñëw mooy tawxiid du leneen mu tegaat te ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana aay bi la ñëw rek teg la de ne la yàlla nee na moom koy dugalu ci waxam ba nga ba nga xam ne doo fa nekk di ko tuumaal yow lépp boo bëggee diingat lii moom aay ngay diingat waaye moom doo ko diingat nee yàlla nee na wa qada rabbuka yàlla dogal na yàlla digle na qadaahu naa di nga ko mën a firee amara di nga ko mën a farataal na wa qada rabbuka yàlla digle na ni allah taabudu bu jaamu illa iyyahu kudul moom loolu dafa dafa dafay taxaw di symboliser laa ilaha illa allah muhammad laa ilaha illa allah taabudu mooy laa ilaha illa iyahu mooy illa gis nga tawxid su ñëwee ci sa xol da koy bale ba mu set loolu lay njëkki du ñëw rek fekk fa tilim yi tilim tilim yaag lënd lënd yaag ah, yu xasaw yaag yu xeeñ yaag yépp mu indi moom ñëw déedéet day ñëw ne la ah il faut ma bale fii ba mu set ma fa beere ko ba lépp lu fi takkoon dañ ba pare dafa taxoon nag mooy bokkaale dafa taxoon mooy bidaa ak yu dem ni noonu ba lépp dañ mu la leer ne dara nekk fa mu doogay indi nag ne illallah yàlla dong mu nekk ngay wéetal yàlla subhanahu wa di jaar fam la jaar mu teg ca ne wabil walidayni ihsaana ñuy rafetal jëmale ci sunuy waajur ku ci yàlla dimbali nga dund ak say waajur wala nga dund ak kenn ci ñoom góorlu ci sa kemtalay kàttan parce que yàlla ni mu fonkee tawxiid ni mu fonkee jaamu ko moom ginnaaw ba ko tuddee tegu ca leneen lu dul wabil waalidayni ihsaan kon nga xam ni daraja bu kaay moom la ko dendale te du ci aay bii rek yeneen ak ci dina ñëw ci biir kon ñu jaamu yàlla bañ ko bokkaale kenn mu ne imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma mu teg ni wa qul lahuma qawlan karima waxfid lahuma janaxa zulli min arraxma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxira yàlla nee na say ñaari waaju amaana ñu dund yow bañ jëm mag tële kenn ci ñoom wala ñoom ñaar ñett bu boobaa na leen fonk na nga defal njëkk ci ñoom bu leen di wax walla nga leen di jëf loo xam ne da lay day metti ci seen xol loolu mën naa gaaw ci waaju parce que danaan xoolal sama doom ji ba mu nekkee gone mënul dara yendalu ma fanaanuma maa ngi dem di liggéey fu nekk dem di daani doole fu nekk fu nekk gas naa fa kàmp fu nekk vide naa fa force ngir rek ñoom ñu dund génn naa dëkk ak dëkk dem euh, galère ay weer wala ay at bis bu rek lu ma fa liggéey yónnee leen ñu jënd ceeb nangam naa tey ma dem ba tële ah funku ma faalewu ma bu dee yaay jaat noonu juróom-ñeenti weer ma ëmb mu gënal ma lépp ah mer naa ngir moom yàq naa samay nelaw ngir moom lu ma doon xalaat rek pour mu réussir def naa ko tey nag maa ngi nii tëdd ci lal wala maa ngi nii tële ah faalewu ma toppatoo loolu day nekk ci wax kon yàlla nee na amaana nga dund ak ñoom ñaan wala kenn ñoom bu boobaa bul wax sax uf sa yaay wax la ne waaye sa papa wax la waaye waaye papa waaye déedéet wala taqul lahuma mu ni wala tanharhuma bu leen sax di gëdd wala iyaazu billah loolu moom ku koy def moom bay boo xam yaa ngi ci musiba gëdd sa waajur muy bàyyi wala ndey yaakaar naa ni ah même bu fekkoon ni yaa ngi dund sunna boo moytuwul mën nga am jafe-jafe ci am waxatuma nag allah wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima del jéem a fexe toujours di leen wax wax ju neex wax ju leen di bégloo wax ju leen di kontaanloo wax juy tax toujours ñoom it ñuy kontaan ci yow di la ñaanal gis nga say waajur toog di la ñaanal foo yëg ak foo yëgul loolu loolu loolu loolu loolu loolu kii la ci yow muslaay la ci yow su laay la ci yow de say waajur te bul kontaanee ci yow rek ñaanal gis nga ba ci ñi nga xam te dañoo gëm ak ay njabar ak yooyu su man suñ ma déglu woon dinaa leen wax ne comme da ngeen bëgg rek lu leen musal da ngeen bëgg lu ngeen am jàmm bàyyi leen njabarkañ ngeen dem rek jéem a fexe ba bégloo seeni waajur ñu leen di ñaanal guddeeg bëccëg bu boobaa yàlla mën na leen a sàmm mu ni waxfid lahuma janaaxa dulli min arrahma na nga suufee suufeel sa bopp waxfid mooy nga suufeel janaax buñ ko waxee mooy euh, ay ci cosaan laaf la mais li mu mooy nga suufeel sa bopp ci ñoom nit amuli laaf ah mais nga toroxlu ci ñoom war leen ak yërmande ndax tële na wa qul rabbi irhamhuma ba pare nag di leen ñaanal suñu faatoo yàlla yal nga leen yërëm même bu ñu faatoogul sax nag kama rabbayaani saxiran comme nit ma yare kon lii lépp ay aay la yoo xam ni dafa tegu ci allah taabudu illa iyyah jëm ci ñaari waajur waaye nag ah loo bëgg bëgg bëgg bëgg nag tey bu ñu taxawoon bëgg laa dugal ci bokkaale ma leen ah pap foofu nag moom du sa àq ah yaay foofu moom du sa àq parce que nag wa in jahadaak ala an tushrika bi maa laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma subhaanallah ànd ak loolu yàlla nee na wa saaxibhuma fi dunya maaruf xoola ba léegi rek mi ngi lay xëcc nga def njëkk sa diggante ak say waajur mu ne buñ la bëggee xëcc ci bokkaale ci bàkkaar ci biddaa ci yooyu ah yow da bëgg a génn toog yow nga xam ni ah, sa maam ci lii la nekkoon kër gi yëpp ci lii la doon xamee woon nangam nangam ba ba gis naa ne ba ma eh, joxee xale yëpp téere yow yow yow doo takk sa bos ah saafara si ma jox yow nii doo ko sangoo nangam nangam nangam. ma ne ko papa nag ah loolu moom àq yàlla la fonk naa la lool waaye lii du ma ko yàlla nee na bu ko topp. waaye ànd ak loolu wa saaxibhuma fi dunia nan ko koy waxee sax na nekk wax bu tegginu sax gis nag ko ànd ak tàngooram rek dugg ci sunna rek taxaw nag waaw déedéet mën ngaa dund sa sunna lu toll ne tar fatal ay ni bu ko ci bàyyi mais del defal del jëflante ak ñoom jëflante bu baax lu ñu mën a wax lu ñu mën a nàngam toogal déglu encaisseel mais lay alxuraan ak sunna bu ca wàcc lu toll ne tarfatala ay bu kër gi yépp toogoon wuuteeg bu famille bi yépp toogoon wuuteeg yow bu koñ bi yépp toogoon wuuteeg yow bu askan bi yépp toogoon wuuteeg yow loolu na nekk yow fierté ci yow parce que li tax ñu wuuteeg yow mooy dangaa nekk ci dëgg ñu ne ci neen ñu lay woo ci bokkaale nga leen di woo ci tawxiid kon amoo bàkkaar sa bàkkaar mooy dañ lay woo ci bokkaale nga bañ yaa bi maa li ad'ukum ila najaat wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billah wa ushrika bi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al ila ila al-aziz al-ghaffar la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah allahu akbar lii mooy mbir sa bàkkaar daal mooy gis nga alxuraan ak sunna mu leer nañ ñi sa bàkkaar mooy gis nga alxuraan sunna mu leer nañ nga nekk ca ñu ne la lii du dulul xam suñ aada dulul xam ci euh, biir famille bi nàngam kon beneen aay bi mu ni waabudullaha wala tushriku bihi shay'an jaamul yàlla ta jaamu leen yàlla ta bañ koo bokkaale kenn loolu ma gàttal ko ndax ñu jeexal muqaddime bi tey xam gudd qul taalaw atlu ma xarama rabbukum aleykum yàlla nee na ñëw leen yàlla moo ne yonente bi wax yéeféeru Màkka yi leen ñëw leen ma dégtal leen atlu ma xarama rabbukum aleykum ma jàngal leen ma dégtal leen li yàlla araamal ci yéen li yàlla araamal ci yéen nag lu bëri la la ca jiitu mooy allah tushriku bi shay'a allah tushriku bihi shay'a bu leen bokkaaleeg yàlla kenn wala lenn kenn ku mënti doon lu am xel la moo xam nit la walla jinne la wala malaaka lenn lu amul xel la moo xam doj la moo xam bant la moo xam nag la moo xam leneen la wala taqtulu awlaadakum min imlaaq bu leen di rey seen doom yi ngir ñàkk gu ngeen ñàkk jàpp ni suñ fi nekkee du ngeen leen mën a dundal xam leen ni nahnu narzuqukum man yàlla maa leen di dundal yéen maa leen di wërsëgal wa iyaahum seen doom yooyu encore maa leen di wërsëgal wa bil walidayni ihsaanan ñëwaat fii nag dinañ taxaw ni wala taqtul awlaadakum min imlaaqi nahnu narzuqukum wa iyaahum yàlla dafa indi ñaari aaya ci alquran yu xaw a nuroo benn dafa ni wala taqtulu awlaadakum min imlaaq mooy bii beneen bi mu ni wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq bu leen rey seen doom yi ngir ñàkk kon doom yi judd na ba pare beneen bi ci des mooy yow yaa yow yaa nekk ci maam yow yaa ragalal sa bopp yow yaa ragal ni da ngay ñàkk wala boog yaa ngi ci ñàkk ba pare beneen mu ne wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq bu leen rey seen doom yi ngir ragal ni bu ñu ñëwee dangeen di ñàkk mooy kon nga jéem fexe ni du ma am doom wala damay def limitation de naissance wala yu demee noonu li tax parce que yàpp jàpp ni bu sa doom ñëwee du am loo ko dundal nga naan daal naa yem ci ñaari benn bu góor benn bu jigéen naa nga naa yow ku la ni ci leen dund ba màgg nga jëm ba nga dem yow mënu am doom yàlla rey leen ci yow doo nga nekkaat nag moo tax màggat yu bari bëri ci Europe dèjà day dem ba amuñu doom yu leen toppatoo dañuy jël yóbbu ca benn kër goo xam ni fa leen fa leen dajale màggat ya gisal yàlla subhanahu wa taala benn aay bu njëkk bi ba mu ne min imlaaq yow yaa ñàkk moo tax ba mu cay teg moom la moom la jox kóolite ba daf ne ko nahnu narzuqukum man maa leen di wërsëgal parce que yow yaa yow yaa ñàkk mu leen nahnu narzuqukum doo koy wax wa iyyahum ak doon mais ba mu ne wala taqtul awlaadakum xashyata imlaaq bu leen rey seen doom ngir ragal ni bu ñu ñëwee dañuy te nii ñàkk yàlla ca ñoom la jiit la la jiital ñooñu bu ñëwee man maa leen di wërsëgal ndax nu narzuquhum ba nga xam ne ñooñu bu ñëwee yàllaa leen di wërsëgal doog a indi wa iyyaakum kon euh, nit ki su wóoloo yàlla rek am na yoo xam ne yépp da koy teg fële mu ne wala taqrabul fawaxisha bu leen jege lu ñaaw ñaawteef maa zahara minha wa maa batal la ca feeñ ak la ca nëbb ñaawteef nag façon ñaawteef yépp yi feeñ yi nëbb la ci borom bi subhanahu mu ni wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bil xaq loolu mi ngi ci yax bi ngeen yéen yëpp mi ngi ci yax bi nekku ci nekkul ci yax bi alaa ko xaal li ñu gën a yitteel foofu sax wala boobu li ko gën a yitteel moom foofu mooy njaal biir aaya allaa tushriku bihi d'accord waaw beneen ah, ah, beneen la ca topp lépp ci laytaayu téere bi mu indi waxu Abdullah ibn Mas'ud al-Huzali Abdullah ibn Mas'ud 32 ci gàddaay gi la faatu yàlla ni man ah, Abdullah ibn Mas'ud ni man araada an yandura ila wasiyati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allati alayha xaatamuhu falyaqra qawlahu taala qul taalaw atlu ma xarama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an ba àgg ci wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu Abdullah ibn Mas'ud nii képp koo xam ne bëgg nga xool ndénkaane bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi te loolu mi ngi ko doon nettaliñ taabiin ku bëgg a xam ndénkaane bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu mel ne ndénkaane boobu da ko bind tamponé ko nee na kooku moom na jàng waxu yàlla subhaanahu wa wax naan kaay leen ma dégtal leen ma jàngal leen li yàlla araamal ci yéen la ci jiitu mooy allah tushriku bihi bu leen ko bokkaaleeg lenn ak yeneen yam ca indiwaat euh, muaz ibnu jabal radiallahu taala anhu moom it kenn la ci saxaaba yi nee na yonent kuntu radifa nabii sallallahu alayhi wa sallam nee na nekkoon naa yont bi toggoon na ma radif mooy ku la ku la supporté yont bi woon na ma ala ximaarin ci mbaam yont bi war mbaam ba pare supporté ci kaneen fa qaala lii yaa muaaz mu ko muaaz mu ne ko ah. mu ne ko atadri ma xaqullahi ala al ibad ma allah ndax xam nga àq am ci jaam ñi ak àq bi yàlla defal jaam ñi ci boppam ndax xam nga àq bi yàlla am ci jaam ñi ak àq bi yàlla defal jaam ñi ci boppam Muaaz ni ko qultu allah wa rasuluhu aalam yàllaa ko bi yenentam day ñoo xam loolu su bëgg na yonent bi xamal ko qaala xaqullahi ala al ibaad aq bi yàlla am ci jaam ñi mooy an yaabuduhu wala tushriku bihi shay'an ñu jaamu ko te bañ koo bokkaale kenn wala lenn wa xaqul ibaadi ala allah amma aq bi yàlla defal jaam ñi ci boppam nag mooy allaa yuaziba yàlla bañ a mbugal man laa yushrika bihi shay'an képp koo xam ni bokkaale bokkaale woo ko kenn wala lenn foofu nag ñaari àq ngi ñu ni àqu yàlla ak àqu jaam àqu yàlla moom force la àq bi nga xam ne moom la jox jaam bi kooku yàlla da ko def takarruman da ko terale du force wala bokkuñu bokkuñu wàccuwaay moo tax euh, yàlla moo ko ko defal du jaam moo ko déedéet qultu yaa rasulallah muaz nee na ma ne ko yow yonent yàlla bi afala ubashiru naas xanaa duma bégal nit ñi ci lii nga ma nettali léegi nii qaala laa tubashirhum fa yattakilu de bu leen wax dara su ko defee ñuy bàyyeeku xam nga yonent bi yar na saxaaba yi ba ñu bàyyi bokkaale ñoom ñépp ñu nekk ci tawxiid bu leen nee nag léegi képp koo xam ne mu mucc nga ci bokkaale yow moom eh, àjjana ngay dugg tam ñu bàyyeeku te yonent bi moom dem na ba mu leer ko ne ko ñii moom redressé na leen ba ñu tegu ci tawhid démb ak bërki dem nag ay jaamukatu xelam lan woon demoon na ci njaal ba mu tiit ci ñoom leen sax leen dem sax ci armée ndax mën na dem ci armée léegi ñaan fa boroom xabru mais dem na ba mu yàgg nag mun leen nag kuntu nahaytukum an ziyaaratil qubur ala fa zuuru maa leen ko doon tere mais léegi dem leen parce que wóolu naa leen moo tax mu ne bu leen ko wax ñuy ñuy bàyyeeku mais bi fi yonent bi jugee après Muaz bi toogee di jàngale ragal ni dina faatu nëbbu wax ji moo tax mu nettali ko kon lu tax mu nettali ko ngir ragal kitmaanul ilm ragal nëbbu xam-xam te dafa am ay laayu yu wàcc yoo xam ne dafay dafay rëbb kuy nëbbu xam-xam yàlla subhaanahu wa taala nee na alladina yaktumuuna ma anzalna min albayinati wal huda min baadi ma bayyannaahu linnaasi fi lkitaabi teg ci ni ulaika yalanuhum allahu wa yalanuhum llahi ñuy nëbb li ma leeral naññi ci xam-xam ginnaaw bi ma ko wàccee ba pare te ni ñooñu yàlla rëbb na leen nit ñi rëbb na leen abu hurayra doon na wax naan laaye jooju dong tiit ci alxuraan ba tax ñemu wumaa bañ a nettali lenn lu ma déggoon ci yonent waaye bu dul laay ji kon ba tey noppi naa noppal kon euh, lii mooy muqaddimatu téere bi wax dëgg yàlla muqaddima loo xam ne waxam ne ci nii tamit lay toppee téere bi ba mu àgg hada wa wa sallama